gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di siyaar bokki jullit yëpp ci weer wu tedd wi di siyaar jullit yëpp tam ci guddi gu tedd gi nga xam ni ci la alxuraan wàcc mu nekk itam guddi goo xam ni moo gën junniy weer xayrun min alfi eh, guddi gi itam ci la alxuraan tanazalul malaayikatu wa ruuhu bi izni rabbihim Euh, te alxuraan mooy li nga xam ni jullit yëpp ci la ñuy tegtalu mu nekk itam loo xam ni wa bil haqqi ansalnaahu wa bil haqqi nazala kon bu fekkee bisu laylatul xadar ñoo fekk fii ci kër suñu Abdou Samad muy guddi gu tedd at mu jot itam ñu fiy ñëw di ànd ak moom guddi gi ak njabootu suñu Masamba gépp ak njabootu suñu Modou Faty Khary gépp waaye nag si Abdou Samatan di kenn ci ñun ba laylatul xadar bu ñu waree def suñuy siyaare ba ñuy war a siyaare fii nag la ñuy ñëw Ngaadum bu ñu fa jógee dañuy bi Daaru Musi moom nag sama diggante moom itam wax naa ko fii léegi bi ngeen daataa ñëw yàlla boole ñu muy sama rak yàlla boole ñu itam muy sama xarit euh, yu baree bari ñu seq ko man ak moom yu baree bari ñu ciy waxtaan ni nga ko waxee itam noonu la amee màggalu Daaru Musi ku ñëw sama kër ku ne fekk nga ko fekk taxawaay bu rafet ba mu fay taxaw ba àdduna bekk di ko rafetlu moo tax ñu ni tam bu ma euh, Laylatul Qadr ñëwee mënuñu koo fay waaye ñu ñëw rek ànd ko moom loolu rek mooy suñuy tànk euh, li may wax wax itam ci bala maa maa ngi ñaanal Serigne Fallou Cissé mi nga xam ni sama xarit la woon te maa ngi den ak taf tafsir Moussa Gassama léegi di ko wax ni ko demuk Fallou gi li ma ci metti xam-xamam li mu yóbbaale. kon nag ñoo ngi koy fasaal ci weeru kor wi eh, ci barkeb alxuraan ak ni mu gëme woon diine ak ni ko diine ñore woon yal na ko yonent bi teeru teg ko ci loxoy Serigne Touba ak turandoom Serigne Fallou ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ay leeram eh, aroon daal guddi gi moom eh, wax di rafetlu lii am ci kër Serigne Abdou Samad soo ba léegi mbooloo mbokk yeeg xarit yeeg am jàmm yi yëpp kenn ku ne teg na si tànkam ànd ak ñun bis bi ah, du ñu àndandoo dundal bis bi loolu suñu xol sedd na ci di ñaanal si yëpp samat yàlla yàggal ko fi mu yàgga a woote bis bi ñu yàgg koo ànd ak moom di leen sant yéen seen taxawaay ak eh, waa média bi yëpp nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mu nekkoon kàddu sëriñ eh, Serigne Abdou Mbacke eh, moom sëriñ Cheikh Khadim Mbacke ibnu maam Thierno Birahim ndaamal daarul moxti ci guddi laylatul xadar fii ci daarul karim ci kër Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Modou Faty Khary Mbacke